bés bi ci tey nga lekk daja dolli nag di sotti rek mboolem mbokki jullit yi mboolem mbokki taalibe yi mboolem mbokk yi ñu ngi sant ñëpp xam nañ ni yitti ji la ñu taxawoo suñu diin rafetale ko sunu taalibe xam na na ci mboolem mbokk yi ñu ngi sant ñëpp xam na ni yitte ji yitte jenn rekk la muy ñu taxawoo sunu diin rafetale ko sunu taalibe xam na ne lépp ci sunu borom la bàyyi koo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 ñu góorgóorlu bu baax suñu kem kàttan di ko doxale suñu diggante te yàlla rek tax ñu ko def loolu rek moo moo nu fi bàyyi loolu rek ci leen war a nekk suñu kem kàttan ñu defee suñu kem kàttan rek eh, suñu borom dana nu gàttandu ci loolu ba mu gën a woyof ci ñun nu gën koo mën gën coo gën caa yore suñu pëstéer gën ca rafetu suñu yéene gën ca rafetu suñuy jëf suñu kem kàttan loolu rek moo nu fi bàyyi alhamdulilahi rabil alamin noo ngi sant ñëpp góorgóorlu ci loolu rek góorgóorlu ci loolu wa tabarakallahu tawfeexi sëñ bi yiir na lu ci wàll yëpp moo nuy gàttandu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 ñu di ko daw suñu xëlu bakkan loolu rek mooy kàddu yi maa ngi sant ñëpp gis nañ taxawaay yi fa tabaarakallaahu yëpp rafet na loolu nag eh, ak cant moo ci war a ko ak xel mu dal ak soññ nag gën a soññ rek suñu bopp gën a nekk ci loolu rek sax ca dàkk suñu kem kàttan rek tax ñu di ko def ak njukkaliku Sëriñ Tuubaa mu ngi leen koy liggéey la jërë ngeen jëf intaale suñu ñaan Amin. Amin. بسم الله ينملها بلا ملاه ولا نجيه بسم الله ينملها بلا ملاه ولا نجيه بسم الله ينملها